abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu ci réew mi ak ci bitim yow. dafa am le 25. fam ñu taxaw décider pour dem cité kër góor gi dindi blocus bi teg fële génne Ousmane Sonko libéré ko. c'est des acteurs politiques. est-ce que euh, mën nañ la xaar ci ci ci manifestation boobu. duma dem ci manifestation boobu pour la bonne et simple raison. que tant que je n'ai pas des éléments yu leer a leer a leer que lii nii lii nii jalgati yoon la duma ci mën dugg dama ciy maandu. mais yow nee nga condamnation bi jaarul yoon mais déglu ma rek lan nga déglu ma nee déglu ma xanaa non déglu non déglu ma Pape Ngagne man mënuloo ma forcer à épouser une position que je pas euh, épouser te dama koy assume wax naa la. autonomie de pensée et d'action te li may wax amul amul dara lu ma ciy ragal dama ne bu ma amul la conviction que blocus bi c'est illégal manifestation bu mel noonu dama ci bokk. conviction bi foo koy jëlee fan ngay jëlee conviction. mais luy conviction. non mais loolu laa lay wax ne su ma amul conviction. lan mooy conviction mais loolu laa bëgg mooy conviction. non fan nga koy mën a amee fan ngay jëlee par exemple ngëm-ngëm bi lay wax ni lii mu xew fan nga koy jëlee. il y blocus. waaw. est-ce que le blocus est légal walla illégal amaguma conviction. boobu ba léegi waaw depuis blocus bi ba léegi. waaw depuis boobu. ok ah, mais d'accord. ok donc maintenant loolu duñ ci taxaw nag quoi léegi léegi d'accord d'accord léegi conviction léegi léegi Mamoudou. Euh, dialogue national sama conviction wax naa la. d'accord ci wàllu verdict bi. d'accord léegi dialogue national bi.